<laughs> corona wu ma de ñuy wax damay saqa dama korona asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di leen bëggee bu wér a wér nag Hmm. asalaamualeykum moom day euh, maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital di jiital ci sama sama kàddu yi ay nuyoo yoo xam ne maa ngi ko jëme ci sunu sang bu tedd di a cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di nuyu Serigne Cheikh moom Serigne Saliou njabootu Serigne Saliou yépp di leen ziar di leen balu àq nag te di leen bal àq eh, di am ngat moo xam ne rek eh, mënta ñàkk ndax pénc mi <coughs> dañu ko bokk waxtaan yoo xam ne nag eh, li ñuy bëgg rek mooy mu am njariñ am na lu ñu junj ci suba mu jëm ci Euh, kilifa goo xam ni ci wàllu politique mbooloo mu bari aju na ci moom ni mu amee nag euh, ci parti yëpp parti politique yëpp lañu am ay ay wëlëre am ci ay xarit am ci ay soppe loolu nag mooy li ñu jàpp su ko defee nag euh, day am loo xam ne dañ koy seetlu ci pénc mi mu dem ba mel ni lu bëgg ub sunu bopp te ñu war ci am taxawaay te mu jafe ndax dafa am ñoo xam ni dañuy wax ni Ousmane Sonko ci moom lañu gis seen wopp ci wàllu politique mooy seen leader seen activité politique yépp mooy def ay live saaga sunu kilifa yi nu am rawatina nag ci wàllu paspas muy loo xam ne bi ñu ko tàmbalee seetlu ak léegi yàgg na lool am na ay at yu bari ñu ngi nekk ci Facebook bi di am taxawaay boo xam ne gisuma lan lay apporter ci pénc mi ndax ay saaga la rekk ci gàttal ak wax ju ñaaw ak lijjanti ak lëj mbët loo xam ni lépp lañ ci jublu mooy yàq pas-pas yi ak yi ak naqaral taalibe yi nga xam ne dañoo bootu ci ay tariqa nu di leen seetlu nag ba usmaan Sonko nekk phénomène boo xam ne ci fan yu néew rek <clears throat> mbooloo mu bari ittewoo na ko ànd ak moom ñu am ci ay nit yu jege jege jege lool ba mu ëpp yoo xam ne sunu ay ay boo daggee sunu sunu yaram ñoom ñu nàcc buñ leen daggee ñoom ñu nàcc ñu xam ne loolu seen choix politique la am nañu sañ-sañu ànd ci waxuñu kenn ne ko usmaan Sonko mooy diine yi wala moo koy cautionné waxuñu ko kenn dañu ne mbooleem ñi nga xam ne dañuy saaga ak di wax yu ñaaw jëme ko ci këru diine yi ñépp nag ñaari côté lañu benn bi mooy ñi nga xam ne il ne se réclame d'aucune école musulmane ñooñu dañoo réew rekk ñii xam naa yàmbaa ji moo yëg ci seen bopp ñii dorog bi ak ñii yenn yu bon yi su ko defee ñoom seen live am ndey andil ndey jàppal baay jàppal nijaay dong mooy seen wax ak wax yu bon ak yoo xam ne dañ koy jëme ci loo xam ne buñ ko xooloon ci seeni way jur rek duñ ko def ñi ci des ay wahabit lañu ak ay salafiste yoo xam ne maa ngi leen njëkk remarqué ci bi ma defee live boo xam ne dama ko def sur l'histoire du wahhabisme de la naissance de l'Arabie saoudite ma xool saa bu nit defee commentaire saaga ma wala mu wax wax ju ñaaw jëme ko ci kilifa ma dem xool profil bi su ma ko xoolee dinaa gis soit photo couverture bi Ousmane Sonko lay biir dina def photo Ousmane Sonko ne mooy leader politique ba komanteer yi yépp jeex may gis xeeti nit yooyu ci ay débat ak i groupe Facebook ak i groupe WhatsApp yoo xam ne seen taxawaay moom maara deytaali waaye ba noppi nag ils se réclament tous autant qu'ils son de Pastef loolu nag nekk lu doywaar bi ma ko seetloo te man ma am fa ay nit am fay wëllëre ak i xarit mën nañ leen a liman vous pouvez vous permettre de citer ces dans le live parce que man du ma tudd seeni tur jomb naa ko ñooñu nga xam ne man am naa leen ñu jege usmaan Sonko ma duma ci tudd turu kenn nit <clears throat> ndax ñëpp kilifa lañu ku ma ci jokkool ma ni ko <clears throat> waxal usmaan ni ko moom day li nuy rus ci moom dafa bari ndax xam nañu ne mbooloo ku ko boot rek danga am koo xam ne moom dana la indil ci jalu gàcce ba sa wàll kon wax dëgg yàlla li nu sopp mooy mu def benn sortie médiatique boo xam ne même bu ko jagleelul loolu mu am loo xam ni da ko ci ber mooy wax ni man parti politique la créé boo xam ne je défends des valeurs je veux un Sénégal meilleur lii ak lii ak lii moo tax ma jóg ne damay politique damay xeex ngir àq ak yelleefi doomi réew mi ak lu jëmale réew mi kanam su ko defee nag képp koo xam ne àndulook man ci valeur yii wala yow saaga mooy sa argument wala wax ju bon rawatina nga jëme ko ci kilifa diine yi ak seen pas-pas maa ngi lay xamal ni la àndumaak yow même soo jàppee ne man yow laa àndal mu leer ba pare membre Pastef yi nga xam ne ils sont tout le temps dans les réseaux sociaux di combattre ñooñu nag ci ay commentaires ak seen virulence bi ak seen seen perspicacité bi nga xam ne wan nañu ma ko tey jii ñooñu je suis sûr et certain que bu ñu leen ko wanoon boobaak léegi ils se sont vraiment calmés kon ba léegi kenn waxatu leen signaler seeni compte ñu bloqué leen wax ak ñoom waxin woo xam ne dinañu wane ni ñii dañoo bëgg jug ngir yàqal Pastef waaye bokkuñ ci ñun te ça c'est les ennemis qu'il faut parce que defe naa képp ku comprendre ni ñuy yàqee système da ngay xam ne ennemi bi ci biir ak bi ci biti bu ñu àndandoo dal sa kaw rek yàqal la loolu de lañu ko ñaanoon ngir yàlla ak wëllëre bi nga xam ne moom lañu am ak ñu bari ñu jaxasoog moom ñaan ko ko itam ngir diggante séeréer ak joolaa man Ousmane Sonko bari na loolu ma koy tooñ xanaa tey kay vous êtes choqué parce que nag il fallait ma ut moyen pour génnee lii nga xam ne vraiment dem nañu ba àgg ci niveau boo xam ne mënatuñu ko àttan loolu rek lañuy ñaan mu def ko yónni nañu fa nag ay kilifa waxuñu dañoo yox kilifa jógal dem fa waaye kilifa yoo xam ne moom day jug di dem ci ñoom ñu ñaan ko wala kilifa yu jug di dem ci moom ñu ñaan ko mu def ci jéego yoo xam ne àddina sépp dina maase xam ni il y une stratégie politique à adapter à adopter pour combattre ces gens-là de l'intérieur et de l'extérieur loolu mooy li ma motiver leneen motiver wu man sañu maa bañ Ousmane Sonko ndax joolaa la may séeréer sañu ma koo saaga sañu ma koo wax wax ju ñaaw ndax loolu dama ko fee fekk gëm ko te xam naa ni lu wér la ma di ko seet di ko rus ngir loolu loolu rekk doyoon na li ci des mooy dafa am ñoo xam ne ni ñu mel ci man moo tax mënuma ñàkk wormaal seen kilifa ci pas-pas boobu mooy ci wàllu politique il est jeune il incarne un espoir politique pour ñu bari waaye tey dama santaat sunu borom bu baax parce que nag am na loo xam ne bëgguma toujours di ko wax ngir jëmale ko ci sama bopp wala sama diggante ak nit ñi yàlla rekk laay jël seere bari na lu ma nit di wax dama laa sopp mu mel ni yëgaluma ko sama yaram ndax damay séentu loo xam ne mën naa doon safaan ci kooku te ñoom ñaari ñëpp bu ñëwee ma war leen a yemale ndax sama sang bu baax ba day démb waxtu wi fekk na ma ci moom te daf ma dénk yaari baat daf ma ni saa boo déggee wax joo xam ne dafa jóge ci nit ñi jëm ci yow dëppook lu rafet nanga sant yàlla te xam ne yàllaa ko def soo dëppoo soo déggee wax ju ñaaw ju jóge ci nit ñi jëm ci yow na nga yàlla nanga ko tuubal kon lépp lu ma waay wax ci commentaire yi wala ci Facebook wala moo xam fu mu ko waxee mu ñaaw lool wara mu war maa mën a naqari maa ngi tuubal yàlla man mi def bàkkaar wala ñaawteef ba mu yëgalee ma ko noonu wala mu xamalee ma ko noonu je n'ai rien contre ñi nga xam ne ison ont passé la journée wax dëgg yàlla di defulewu ci man man man yéene naa leen ko man man déggee naa leen parce damay gis koo xam ne ci profilam yónnee na ma message ne ma dama laa bëgg ngir sëñ tubaa dama laa jàpp ngir sëñ tubaa yow jàmbaar nga yow nitu dëgg nga tey kooku yónnee na ma message wax ma loo xam ne weñ wu ci dal dee te c'est la même personne te xam naa ni incompréhension rek la sénégalais nag euh, bu ngeen juboo fukki yoon fukk ak benneel ba bu ngeen xuloo rek wala ngeen wuute rek gis-gis dangaa baaxoon démb waaye tey moom kon man lii mooy sama motivation ci publication yi ma def Ousmane Sonko c'est un leader politique aucun leader politique dans ce pays n'est exempt de critique il faudrait que les gens comprennent une chose fii képp ku fi politique dañu la war a critiquer dañu la war a wax loo xam ni dina la naqari nga muñ ko wala ñu wax ko sa mbooloo wala ñu wax ko ñi nga àndal wala say idée man Aly Ngouille Ndiaye lu ne wax naa ko ko fi Aly Potolamp samay post tout le temps nit ñi dañ koy gis te ba ma bëggee mu recevoir mais il m'a reçu chez lui dans son salon privé ñu toog waxtaan mu jiite ma tànkusaan ñaanalante ma jug ak dem ñibbi man politikuma ànduma kenn kenn moomu ma Idrissa Seck jàppale naa ko ci campagne électorale bii weesu li tax ma def ko mooy dama gis foo xam ne dañu faa daje ci pas-pas ñu bëggoon ko néewal doole ndax loolu ma jàppale ko waaye man mosumaa gis Idrissa Seck ak sama ñaari bët amul benn leader politik boo xam ne dinaa toog ci sa buntu man di la xaar duma rang kenn bëgguma lu neex kenn toppuma kenn man mennum cheikh Mouhamadul Bachir képp mooy sama leader tey ak ëllëg waaye nag effectivement je fais de la politique parce que lépp loo xam ne intéressé na sama dundu réew intéressé na askan wi loolu dama ciy wax dama ciy jëf mais je vous mets au défi dama sortir foo xam ne am naa fa kartu membre parti politique wala am naa fa adesiyon man awma sax carte membre daayira bokkuma fenn fudul ci Cheikh Mouhamadoul Bachir waaye nag réew mii ñu ne képp koo xam ne jàpp nga ne danga nga fee ne di politique wala ngay kilifa goo xam ne li ngay def dafa intéressé askan wi te kenn du la wax dara boo yeboo nga waaj ba jekk te xam ne faww di nga dégg dara ñi ci des nga xam ne nag dañuy dañuy boo boo tuddee seen leader ñu mel ni ay gaynde ci sa kaw te ils n'ont apporté aucun argument politique man tey déglu j'ai passé toute la journée à lire vos commentaires kenn indiwul argument tu m'as déçu yow da nga maa bett yow politisien nga yow grand ndeke nangam nga yow yow wóoroo yow doo murit yow doo nit ak wax ju ñaaw kepp wax dëgg yàlla loolu du argument politik ma personne n'a aucun ñi lay jéem a baab sax naan la waaw sa image bi nga am ak c'est yow daa am foo ne ci xolu nit ñi ak yooyu xolu nit ñi la sëñ Tuubaa waxoon rek ngërëmul nit ñi jarta wut ndax du jariñ dara te kenn mënu koo am te boo ko amoon it ju jariñ dara li ma ta wut mooy ngërëmul yàlla man lépp loo xam ne maa ngi ciy dugg wala ma ciy yëngu wala ma ci am ay taxawaay yoo xam ne war naa ko cee taxawu jëmmi sëñ Tuubaa dong mooy tax waaye du doon leneen je m'en fous carrément de ce que les gens pensent ci wàllu ay crédibilité ak notoriété ak yow daa am foo ak yooyu ak yow noo déedéet man boobaak léegi li ñenn ñi di wax naan waaw il a pris la grosse ay kii boo ko jayee mu jayaxu yooyu déedéet man maa ngi fi toog fa ma ne woon kenn kenn jëliwu ma fa tey laa gën a jàpp sama bopp sëgëru nit tey laa gën a jàpp ne man ëpp taalube dong laa boo xam ne lu dul ngërëm duma ma jariñ tey laa gën a gëm sëñ Tuubaa tey laa gën a jàpp ne sama njariñul àddina ak alaaxira ci loxo Cheikh Mamadul Bachir la ne ndax ngërëm li may wut ci yàlla ci moom laa koy wut leneen intéressé wu ma leneen ñoru keneen intéressé wu ma keneen ñoru ma waaye réew mii nu bokk bokk fee ne incha allahu rabbi képp koo xam ne mbooloo bootu na ci yow ànd ak yow am ci ñoo xam ne ñépp li leen soxal mooy xeex kilifa diine yi ak xeex diine kooku faw dañuy daje faw dañuy daje kooku faw dañuy wax ak yow te dinañu la critiquer dinañu la teg baat dinañu wax ak yow kenn mënul am jooju maqaama te it nag wax dëgg yàlla je vous donne un conseil yéen ñi nga xam ni ay jeunes ngeen xawma lu Ousmane Sonko di incarner ci yéen mais vous devez lui rendre de très mauvais services en vous comportant incident les réseaux sociaux vous êtes trop virulent trop violent verbalement vous n'inspirez pas aux gens confiance kon am na loo xam ne seen liggéey la war a doon dangeen a war a góorgóorlu yéen ba bu fekkee bëgg ngeen ay bëgg ay ay yu am doole ay kilifa boot leen ngeen góorgóorlu nag te yaru te ami teggin nag te rafetal ko loolu am na solo lool ndax nun lekkuñu ceebu Sonko joxuñu ñankatang nga tiir lekku nu bëgg a jëm sunu yoon nekkut ci moom àndunoog moom àndunoog dara loo xam ne jàpp nañ ne fii moom moo ñu fi jàpp wala fii lañu ñu féete waxuma nag en terme d'idéologie waxuma en terme de politique internationale de diplomatie waxuma en terme d'économie qu'est-ce qu'il nous propose àgguma fax foofu ak moom ndax je ne suis pas dans ce terrain la bien que je réfléchis à tout ça j'écoute ses discours waaye duma ci duma ci dugg ci ay commentaire ak i am na nag ñoo xam ne ay nitam lañu ñu baax ñu yaru ñu ami teggin ñooñu ñooñu ñooñuy tax a am kersa ci àgg yenn nit ñi fenn fii tey rek am na ci koo xam ne dafa dafa def live di wax di wax ndax position bi ma jël te ma ko envoyé message ne ko yow sama nijaay nga ndax sama yaay seen la sant kon li ngay wax dinaa la delloo teggin wax ak yow ci ay kàddu yu rafet ngir nga xam ne rek man ëwma yéene ju ñaaw ëmbuma pas-pas bu bon parce que dëkk bi nag il faut ngeen xam ne li ñu liyee dafa bari il foog ñu xam ne dañoo war a seet kenn ku ne looy jàppee sa moroom man Ousmane Sonko bu ma amul dara lu may respecté ci moom it ma xam ne joolaa may séeréer su may wax ak moom yoonu kenn nekku ci waaye nag du tax ma jàll ko baat du tax ma wax ko lu bon du tax ma def dara loo xam ne day nuire entreprise am ndax sañu ma loolu lii rek lañu bëgg lii rek la ñuy waxtaane di ci joxe sunu xalaat ñun ak loo xam ne itam sañ nañu ko bu wér ndax ci lañu mës ne loolu nag duñ ci jóg mukk kenn mënuñ cee xoqatal waaye daal góorgóorlu leen vous ne vous n'êtes pas mes ennemis et je ne suis pas votre cible seeni ennemi mooy ñi nekk ci seen biir te bu ñu waxee mu ñaaw buñ jëfee mu ñaaw ñooñu duñ leen andil kenn ku leen di tax a dolliku wala kuy tax kenn gëm ne yéen réew mi buñ leen ko joxee dina wuy ci stabilité ak ci jàmm te foofu sax àggaguñu fa waaye daal yaru yar seen mbooloo yar seeni ak seeni tontu yar seeni jëf te xam ne réew mii kenn mënu koo jéem a diriger en contournant les tariqa képp ku bëgg a dégg këri diine yi ngir jiite réew mi dinga xam ne boo déggee këri diine yi këri diine jànj bi te ab jànj la ñuy dégg du te du tee ji tool tool bi mooy këru diine yi noon de sëñ Tuubaa rek la ñu am yoonu di rek la am te fu mu soxlaa ñu war a taxaw jug défendre ko dinañu ko def gis naa nag ci sama mbokki taalibe yi ñoo xam ne bis bu nit waxatee ci yoonu murit lu mu warta wax te réagiruñu dinañu ma bett lool ndax maa noon noom noo bokk benn sëñ Tuubaa ñu def ay photo profil ku tedd ki te tey jii li ñu ma yekk lépp weñ bu ci dal dee te man awma benn solo naqariwu ma waaye seen leader politique bi tax ngeen def ko am na keneen koo xam ne yaakaar naa ni war na leen a jaral lupp loolu na ngeen ci xalaat fii bu fi kenn wax loo xam ne waru koo wax te jógu leen mel ni ay gaynde ci kawam loolu daal man mooy sama mooy sama mooy sama position mooy sama gis-gis man ànduma ak kenn contre ma kenn xawma kër Idrissa Seck fu mu ne xawma kër Sonko fan la ne ñoom ñëpp xawma leen waa APR yi nga xam ne sax ñoom laay yekk lu lu musiba ñoom laa gën a xam seen kër je peux aller chez Aly Ngouille Ndiaye sans demander son adresse ak d'autres leaders politiques yoo xam ne ñu ngi APR te man saa bu ma xëyee yanu brique dóor APR te wax dëgg yàlla maa ngi séq ak ñoom ay rapport ay rapport yu rafet accepter l'adversité dans dans dans la décence soyez des gentlemen waxtaan leen ak nit ñi waxtaan wu rafet waaye argument violence saaga wax ju ñaaw loolu doxalul am réew nag loolu politikul yéen da vous êtes pas des des des en fait vous n'attirez pas vous êtes des épouvantails toolu Ousmane Sonko bi yéen da ngeen fa taxawee noo xam ne picc mu ñëw ngeen dàq ko te loolu loolu la ñuy loolu la ñun li ñu ci intéressé mooy li nga xam ne mooy li ñu am nun muy sëriñ bi loolu rek ku ko wagar ku ko ku ko teg fi nga ko war a teg ku ko joxub cër rek loolu ñu ànd ak yow loolu daal mooy sunu taxawaay waaye li ci des ñun toppatoowuñ ko ku xees ku ñuul ku ku jàdd koñ ku gens ku tux yàmba loolu yëpp ça à chacun ses ses ses casseroles loolu toppatoowuñ ko waaw waaye daal nan nu dimbali nun bu fekkee daal ay bokki taalibe ngi ci biir te te mouvement bi jaral na leen nan wagar sëriñ bi nag te xam ne ñi ci seen biir di saaga sëriñ bi ñoo ëpp fuuf ñu góorlu ci loolu sañ nañ koo waxante diggante mbokki taalibe yéen ñi ci biir ñi may wax xam ngeen leen bu baax je ne vais pas me au niveau de citer leur nom mais vous les connaissez ils font des lives tous les jours te lu bon lu ne ñu ngi koy wax yoonu murit ak sëriñ bi waaye tey jii moom gis naa gaynde yoo xam ne seen taxawaay bett na ma gis naa gaynde yoo xam ne wuu deke mën nañu wax ju ñaaw mën nañoo tontu mën nañoo saaga waaye jégal naa leen lépp ci barkeb sëriñ Saaliw maa ngi ñaan sëriñ Saaliw njabootam gu tedd gi yàgg fi <clears throat> te taw feex am ci réew mi barkeb sëriñ Saaliw Mbàkke jërëjëf je remercie tous